Liverpool Chelsea. Oh la là, match. La piscine. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Quel match. Non mais je me suis régalé. Mais Jürgen Klopp mi bi ay bébé la dugal. non mais Klopp salaam gars yi bégg naa leen nuyu ku ci nekk seen ab tur ak seen ab sant Liverpool Chelsea final Carabao Cup. non mais li nga taxoon sànq ba tey mënumaa dugal vidéo nag concentré wu ci match bu neex bi ni mel oh mais Chelsea Chelsea benn côté malheureusement collectif bi dafa xaw a des total malgré ils ont bien joué ils n'ont pas démérité ils tout donné beneen xar kanam sax laa gis tey mais collectif bi bu gënoon a suude carrément ni ñu football collectif Palmer di gaaw a bàyyi bal bi ah non mais non mais Chelsea mën na dugal bi kii raté bal bi à la quatre vingt troisième minute loolu loolu man xaw ma <laughs> non mais kooku kooku na yalwaan waa Chelsea. mais Liverpool oh là là Liverpool man li ma gën a neex seen football bu ñu bàyyi maanaam ñoom amul comme euh, na laa xam ne arrêt de jeu ni bal bi di yéegee noonu lay wàccee te da centre jeu ci seen seen seen seen biir te li gën a garaaw mooy que joueur yi fa ci milieu terrain bi te xam nga milieu terrain mooy moteur moom mooy créer jeu mooy manier mooy mooy avancer équipe bi di arrière équipe bi te seen milieu terrain bi ñoom ñëpp ren la ñuy doog a fubal seen moo lay firndeel que ni Jürgen Klopp il a beaucoup travaillé Jürgen Klopp c'est non ngand la chapeau à lui Reds Reds félicitations à vous vous avez joué et vous avez gagné te tey boo xoolee avec de l'absence de de de de Mo Salah ponkal mi Liverpool essayé fexe ba gagné ko grâce à Van Dijk leader on a retrouvé le meilleur Van Dijk Van Dijk mi doon wax meilleur défenseur ces dernières années dafa chuté woon nag blessure bi ko gardien de but Everton bi indiloon. loolu ko pénalisé woon mais actuellement ñuy commencé retrouver Van Dijk les Reds vraiment seen sourire a ngi ñëwaat mu ngi noonee chapeau à vous félicitations seen victoire bi ngeen am ci kaw kookee di Chelsea kookee di Nicolas Jackson c'est un grand passeur ko man su ma doon moom damay replacé wu soit di football ci flanc bi wala mooy football numéro 10 donc ce non seulement xam na ni ñuy manier bal bi conduite de balam nice euh, technique techniquement il est à l'aise problème maanaam Euh, si quatre occasions ma dugal ci trois wala deux efficacité bi te gëm naa dinañ ko travail baax a baax mais à part ça vraiment ce gars il est technique il est technique mu ngi noonee mais Caicedo il a tout donné aujourd'hui un gars exceptionnel Virgil van Dijk chapeau à lui homme de match laa koy jox mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu ma leen xaar ci commentaire yi tey nañ ngeen gisee final bi maanaam daf ma daf ma daf ma ëlëm quoi man non mais je ci match bu neex bi ni mel félicitations à vous les Reds Liverpool jàmm. ba beneen yoon ci vidéo képp koo xam ne abonné goo suma chaîne YouTube dugal suma bio TikTok nga bës logo YouTube mu yóbbu la chaîne bi nga abonné activé cloche ci seetaan vidéo yi ba mu jeex loolu nga ñu mën a soutenir bu baax a baax ba beneen yoon ci vidéo merci à vous وحشتك والله بالله عليك يعني ابو اللي جابك على التليفون والله بالله كملوا كملوا لا كويس كويس الف سلامه يا كابتن لازم نروح المانيا لازم نروح المانيا يا كابتن محمد عمل له فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال شوية شدة ولا ايه؟ طبعا راح تقعد راح شوية طيب اقعد راح شوية انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه بتموتوا منين يا عم محمد اعملوا اعملوا له عمليه اسمع اسمع ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي انت سليم اهم حاجه ابو اللي جابك على التليفون كمله كمله نجمة ألف سلامة يا كابتن كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نروح ألمانيا كابتن محمد كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شوية شده ولا ايه؟ طب انا هتقعد ريح شويه طيب اقعد ريح شويه انت رايح فين؟ شوية عايز عملية قلتوا منين يا عم محمد؟ اعملوا له اعملوا له عملية اسمع اسمع ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي يعني ابو اللي جابك على التليفون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 كنت عايز عمليه جبتوا منين يا عم محمد اعملوا له اعملوا له عمليه يا عم ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي يعني اول اللي جابك على التليفون ما كابتن كويس كويس الف سلامه يا كابتن لازم نروح المانيا لازم نروح المانيا كابتن محمد عمل له فرمان كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال شوية شدة ولا ايه؟ طبعا راح تقعد راح شوية طيب اقعد راح شوية انت رايح فين؟ شوية عايز عملية بتموتوا منين يا عم محمد؟ اعملوا اعملوا له عملية Didn't have to cut me off. have to cut me off.